ngay def ay promesses yaakaar naa ne ce discours là populiste ce discours là démagogue je pense que ñun loolu on en a assez donc je pense que loolu laa amoon si grosso modo une déception totale un discours qui n'est pas en phase par rapport aux réalités du Sénégal et une, un discours aussi n'est pas en phase par rapport à sa posture. Parce que c'est un président qui a cumulé deux mandats et la conscience est très claire sur ce point-là donc on n'a pas besoin de ses promesses. je vous remercie dama leen bàyyi ngeen continuer ngeen wax le temps que waa Benno Bokk Yaakaar yi mën a jël note mën leen répondre euh, déglu nga discours bi walla parce que yaa ngi woon ci concert de casserole bi. non dégluwuma discours bi. Hmm. discours bi comme ni ko Badiane waxee ñëpp xam nañ ne répétition lay doon parce que. quand même déglu ma discours tay bi mais jël naa temps wu déglu discours yi mu def yëpp entre 2012 ak léegi. discours yëpp dangay gis ne dafay am ñaari problème problème de pertinence ak problème de portée dinaa si ñëw parce que discours à la nation ñun dëkk bi constitution bi moo ñu tënk j'ai l'habitude de le répéter nga xam ne mooy loi fondamentale bi après ay loi tegu ci suuf ay décret tegu ci suuf moo wax en son article 48 que le président de la République peut adresser des messages à la nation le fait que 31 décembre mu nekk fin d'année bi c'est une tradition républicaine muy def un discours donc discours bi day pertinent trop trop doon na gën mu bañ a nekk un bilan économique ndax toujours bu ñëwee man déglu ma ko mais li ma la wax nii doo ci dindi dara day def le bilan économique maanaam sur le plan du transport dans le domaine énergétique dans le cadre de la macroéconomie la croissance dans le cadre des finances publiques lu jëm ci agriculture lan la réaliser donc bilan lay def sur le plan social dafay ñëw wax subvention yi mu def te mu tuddal la bourse de sécurité sociale wax la éducation wax la santé. kon <laughs> da nga lire dans les pensées de Macky Sall. te dégluwoo sax discours bi non li ma bëgg a wax. li ma hmm. bëgg a wax. Hmm. mooy bilan lay def. mais ce bilan là à chaque fois bu koy def dafay fàtte. li ëpp solo mooy le bilan immatériel parce que chef de l'État la c'est vrai qu'il est à la tête du pouvoir exécutif mais il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire te moom mooy le chef de l'État moom mooy la clé de voûte de toutes les institutions aujourd'hui dans le débat public lan moo ëpp solo justice ñi sénégalais yi di waxee mais président de la république discours à nation du ko def ma jël beneen exemple boo jëlee tey moom dans le cadre même de son bilan parce que moom li mu war a def mooy tàmbalee par rapport ak vision parce que sa bilan da nga koy ad da koy def mu adéquat par rapport ak lan mooy sa vision vision am lan la woon plan Sénégal émergent nga xam ne mooy la référentiel des politiques publiques ñetti axe la premier axe bi transformation structurelle de l'économie la deuxième axe bi protection sociale la éducation santé capital humain et cetera troisième axe bi bonne gouvernance la renforcement des institutions paix et sécurité aujourd'hui Sénégal at bi gis nañ fi lu jéggi dayoo ay braquage dans les gendarmeries ay attaque à mais armée ak ay armement yu lourd insécurité bi am moi qui habite à Grand Yoff xam naa insécurité bi am mais loolu noonu question yooyu à chaque fois du ci débattre jëleen un domaine aussi sensible que l'industrie parce que ñoom seen PSE bi ay phase la y'a PAP bi nga xam ne moo jiitu woon entre 2014 ak 2018 deuxième phase bi nga xam ne moo nekkoon nga xam ne après pandémie bi dañ ko réajuster muy PAP 2A ñu réajuster ko ne dañ koy accélérer boo demee dans les pages vingt 25 et 26 daf lay naan réajustement bi lu ñu bëgg mooy enseignement yu ñu tiré ci Covid 19 mooy dëkk bu nekk da nga war a compter sur ses propres ressources ñu ne ñett yii nañ war a basé wu pour dëkk bi moom boppam souveraineté alimentaire souveraineté sanitaire ak souveraineté pharmaceutique. kon donc loolu soo ko bëggee am industrie bu fort moo la koy am lu tax toujours dans ses discours du wax ci industrie wala bu ci waxee tamit donc du ci yaatal donc loolu mooy par rapport à la pertinence par rapport à la portée du discours gis nga chef de l'État sooy wax gis nga wax am na solo mais dangay fexe ñu dégg la melal noo xam ne soo bëggee wax ñëpp dañ lay déglu mais su fekkente ne li nga xam ne mu ëpp solo ci dëkk bi mooy le le le le volet démocratique cest à askan wi ñoo la dénk seen souveraineté dans le cadre de la consultation populaire et dans le et de la respiration démocratique mu am périodicité boo xamante ne da nga war a jàkkaarloog sénégalais yi soumettre ci seen évaluation ñu tànn la question du mandat est un est une question cruciale et palpitante mm. par rapport à la portée du discours aujourd'hui deux semaines yi lan moo tenir en haleine le débat public c'est le rapport de la Cour des comptes hmm. gëw ne su ciy wax dina ci yaatal waaw wax alors que dans les bi dina continuer. mais non soxlawuñ <laughs> waaw xamuñu lu dafa ne ces efforts nous ont donné maintenir le ko plus d' autonomie budgétaire en permettant de couvrir 80 pour cent des dépenses publiques internes à l'État dans le même esprit de bonne gouvernance des affaires de la Cour financière de la pandémie Covid-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. nga loolu kan moo koy ko. Mm. koo xam ne rapport institution bu mel ni nag nga xam ne loi moo ko institué am ay innovation majeure déclaration de patrimoine am ay innovation majeure pouvoir de saisine directe du procureur de la République 40 mhm. rapports ba léegi parquet mu ngi ko bloqué mhm. et le parquet est sous la tutelle du ministère de la justice moi je travaille dans la justice mhm. kon kooku su waxee ne rapport yi dina am suite mënuma koo gëm parce que daf ma dig ndékki joxuma ko dig ma def joxuma ko su ma digee reer pour lan ma koy gëm beneen bi mooy par rapport à la portée du bu fekkee yow loo diggee doo ko def des promesses toujours non tenues parce que à chaque fois il a l'habitude de rappeler l'équité territoriale bokk na ci slogan yi nga xam ne da koy yëkkati demal nga dem si surtout ANSD nee na Sénégal taux de pauvreté bi non seulement nombre de pauvres dafa yokk parce que taux bi wàññeeku na en valeur proportionnelle mais en valeur absolue le taux dafa passé de 5 millions 832 mille pauvres dem ci 6 millions 32 mille pauvres maanaam demande bi yokk donc dañuy dem vers une alimentaire 37 pour cent yooyu ñu lay wax mooy taux de pauvreté bi dañ ne ne en milieu rural c' est 53 pour cent alors qu' en milieu urbain c' est 19 pour cent. mais gouvernement bi ngi contesté chiffres yooyu. li ma bëgg non non c' est ça c' est l' ANSD. Ah, waaw waaw waaw xam lu ma la bëgg a wax. li ma la bëgg a wax mooy su fekkee da woote équité territoriale territoriale à partir de 2012 ñu ñëw te statistique yooyu wane contraire bi saa veut dire que kon sa équipe sa sa yi nga defoon pour territorialisation des politiques publiques pour désenclavement pour décentralisation mooy dafa échoué ma jox la beneen statistique. rapidement aujourd'hui le taux d'électrification en milieu urbain c'est de 96 pour cent en milieu rural c'est 58 pour cent xam loolu mooy lan cest à ñeenti village yoo jël lu mat lu mat li li ci am courant matuñ juróom-benn parce que bu ñu nee juróom-benn mooy 60 pour cent cest à ñeenti village yoo jël. ça ay village la yoo xamante ne ils sont dans l'obscurité dans l'obscurantisme mënuñu am télé mënuñu am climatiseur mënuñu am euh, réfrigérateur. mënuñu am leneen te ñun ñii 2012 fan lañ ci tolloon mais li ma bëgg a wax mooy. en da nga def comparé chiffre ba muy ñëw ak léegi. non xam nga problème bi lan la. dafa am ay gap yoo xamante ne mënoo toog ci Sénégal. nga euh, dérouler pendant plus de dix ans ñu voté ay budget yu dul jeex. nga leb ba yow sa taux d' endettement aujourd'hui mu ngi ci 67 pour cent parce que l' encours de la dette je parle pas du service de la dette naa si ñëw bu ñu duggee si bilan bi l' de la dette aujourd'hui ñu ngi ci 11 300 milliards loo xam ne Sénégal am na ko ci bor loo xam ne maanaam décaissé na ko te fayagu ko ci bor mais loolu yëpp soo ko defee mobilisé ko di nga am ay réalisation yoo def mais li ñuy natt mooy réalisation boobu nan la toll par rapport ak askan wi seen demande li ñuy natt mooy réalisation yi est ce bi nga koy def jëloo marché yi def ko yaay may ma ñeex mais est-ce que réalisation bi nga koy def politique de financement bi baaxoon na te on doit porter compter sur nos propres ressources tey boo juree le budget du Sénégal lu ñuy wax le besoin de financement mu ngi toll ci deux mille trois cent milliards ñun kañ nañuy moom suñu bopp su ressources interne donc voilà les véritables questions qu'il faut se poser et à chaque fois bu ñëwee discours am day ñëw def du bidouillage du colmatage du rafistolage. moo tax sénégalais yi duñ ko déglu ñu dem tëgg hmm. seen i bool. waaw euh, Mame Mbaye Niang euh, jox la kàddu gi euh, gars yi nee nañu moom président au lieu que muy def bilan li mu waroon def daal mooy déposer le bilan. oui merci Pierre-Edouard. Hmm. di remercier. waaw Cheikh Dieng il nous a tamit di nuyu hmm. Cheikh Dieng bu PDS. ci tool bi muy soog a ñëw profito tamit euh, sànq dañu nuyoo rek di jaale suñ mbokk chrétiens yi parce que kilifa ci seen diine bu mag dem na di souhaiter aussi sénégalais yi déwén yàlla may ñu ndam yàlla may ñu wér ak wérle ak sutura ak jàmm di wax ni que peut boo dee xaar dara ci wax boo ko gisul da ngay xàddi eh, bu fekkee ni que da nga jàpp ni que discours bu président de la république 31 décembre mu war a wax ak askan bi war a wax ak askan bi liñ nar a def ci at mi ñu ñëw yow nga bëgg ko tënk ci benn point rek di xaar ay débat politique wax dëgg yàlla di nga am déception mais amul benn sénégalais tey boo xam ni réew mi rek a la ñor bu munul dégg li président wax am euh, projection bu rafet ci li di am 2023 parce que amul benn wàll ci li ñuy dund boo xam ni waxu ko muy ci wàllu wérgu yaram ci wàllu njàng ci wàllu économie boo waxee économie laal nga bànkaas yi nga xam ni yépp mooy def économie boo waxee économie laal nga preche laal nga intique laal nga agriculture agriculture nag dafa doon loo xam ni euh, lu am solo la ci réew mi ndax téeméer yoo jël fii ci réew mi mën nañ jàpp ni que juróom-benn fukk yi ci loolu la ñuy dund ci loolu la ñuy liggéey donc jàpp naa ni fu ci nekk wax na fa ko jëlee lim ci def ak fañ ko yéene yóbbu ci at mii di ñëw waaye plus particulièrement ci euh, programme euh, prioritaire bi euh, triennal bi donc jàpp naa ni président de la république wax na mais bu fekkee ni que yow sama sama xaritu grand parti bi moom nee na du wax du def politique structurelle defe naa dëkkoo ci réew mi politique structurelle mooy antici nee na du anticiper ci problème yi ñu am jël exemple ci pêche mais damay jàpp damay fàttali ni que réew mi projection ak politique bu mucc ayib ak ps e bu valable moo tax liñ fi fekkoon ci énergie tey problème boobu amul bu amul woon ay investissement bu amuloon ay liggéey tey jii nii 2012 mënuñu woon def lii donc loolu politique structurelle la mooy xool wàll ak fànn yi nga xam ni réew mi dina ci am ay jafe-jafe nga anticiper ko nga anticiper ci def ci investissement yi ci war pour mu méngoog ni nit ñi di màggee ak ni soxlo yi Euh, soxla yi di di di di yokkoo ci wàllu woow loolu moo am ci ndox mi ndox mi bu fekkoon amul woon politique structurelle ak stratégique mais kon tey dakaar kenn du am ndox mais KMS 2 KMS de usine de dessalement di anticiper ci ay problèmes yoo xam ni d'ici 15 ans la problème mu mobilité urbaine président Wade bi mu fiy jógee def na ay autoroute de def na 36. kilomètres d'autoroute mais tey investissement bi am ci mobilité bi ak ci tali yi ak ci autopont yi bu amul woon mais fii ak dix ans ay problème la ñu am ñu miser sur vingt ans loolu moo tax ñu jël indi terre xam ni que tali yi ak oto yi rek mënatul régler problème mobilité ñu miser ci transport de masse si c'est pas bu fekkee ni ko du loolu mooy politique structurelle xaw ma lan mooy politique structurelle bu fekkee ci wàllu napp bi nga jël nga ni dañu jaay géej gi bu ñu nax nit ñi Union européenne li mu fi am ci bateau matul diis bateau yi ci des yëpp yi bat pavillon sénégalais Union européenne jën yi ñiy napp gaalu Sénégal yi duñ fa egg donc buñ nax nit ñi buñ wax ni que dañu jaay géej gi géej gi kañ lañ ko jaay lu dul nappkat yi fi nekk di wut gaal di xëy di dem avant Macky Sall di ñëw ay pêcheurs sénégalais dañ daan ut ay licence di dem Mauritanie di dem Guinée-Bissau pour di napp parce que ñu ci bari ci ñun ci loolu la ñuy dunde et suñ consommation ci jën dafa bari léegi ndax jën am na wala jën amul jàpp naa ni politique gu euh, gën a euh, sàmbar gi euh, xool géej gi ak doxalin bi mu ëpp rigueur ci ci ci ci ci ci ci euh, sàmm géej gi defe naa war na am repos biologique war nañ xool borom xel yi ñu ngi ciy xalaat mais xëy rek toog ci tele amul politique structurel waa donc ñii dañuy xëy di taf yëngal rek réew mi taf yëngal bu fi amoon xamal ni taf yëngal bu baax parce que amul benn wàll ci bu ñuy dund am na ku fi wax Euh, maître maa ngi ko dégg mu ni xawma ma woy euh, dëkk bi dara dara doxul ci wàllu ndox ña cinq villages quatre villages mais baax na ngay xam fan lañ jóge bu fekkee ñaari village ñoo amoon ci fukk tey juróom-benn village am mooy jéego am na ca ñaari village independance la ba 2012 deux villages sur dix indépendance ba 2012 2012 ba 2020 ñu egg ci cinq virgule six village mais donc jéego am na yaa parlé wax na ci waxu ndox am na ay villages yoo xam ne amuñu ndox bu ñu naan mais loolu on l'assume mais ñaata nit ñoo dul woon naan ndox mu sell tey ñooy naan ndox mu sell commencé ko fii par Dakar consommation bi c'est passé de deux cent vingt vingt mille mètres cubes jour aujourd'hui bu ñu amul quatre cent mille mètres cubes jour fii ak cinq ans ay problème day amaat donc ku xam c'est booy wax dangay xam léegi naa sama xaritu PDS bi wax ni ko wuy diplomatie bi xawma la c'est que baax na ngay wax ci loo xam juin 20 Macky dugalu fa Sénégal Macky Sall da doon xeex jëfandikoo diplomatie Sénégal pour que Union africaine am fa chaise Union africaine en tant que union mën fa toog boo nee yeneen dëkk bokkuñu ci Afrique Afrique du Sud du Afrique la bokk Afrique du Sud Afrique la bokk. Mhm. Afrique du Sud membre G20 la mais lim doon liggéey en tant que président Union africaine. mais cër la ci Sénégal sag la ci Sénégal président wu Sénégal ànd ak diplomatie Sénégal fexe ba euh, Union africaine mën na toog ca gv parce que ku wax dëgg ca wax xam nu àddinay doxee ku xam nag laa wax de xam ni G20 fa la ñuy joxalee. fa la ñuy décider ni économie àdduna bi di di di doxe donc moom bu fexee ba Afrique am fa place commencer sumb ay jéego pour que Afrique am ñaari place conseil de sécurité defe naa loolu sagu Sénégal la. et loolu day wane ni que diplomatie Sénégal beneen bi ma bëggoon a wax bon euh, maître euh, wax dëgg yàlla ku moom nee dégluwul ku dégluwul nag mënoo wax parce que fii discours bi lañ fi lañ fiy débattre. donc munoo ñëw ak say idée empirique ak say idée yoo xam ni ça ne repose sur rien bëgg def affaire u nihiliste man je veux bien ñu débattre boo nee ma Macky Sall li mu wax ci éducation amul ma ni la 2012 pratiquement ñaari université lañ fi fekkoon tey am na yeneen ñaari université yu pare su mën nañ yeneen ñaari université boo nee ma euh, maa ngi ko dégg mu naan euh, suñu suñu wax yépp ci décentralisation équité mais attends lii mooy équité lii mooy équité PUMA PUDC moo créer équité territoriale parce que investissement yi amoon ci ci réew mi yëpp mi ngi yemoon ci Ndakaaru Thiès tuuti Saint-Louis ak peut-être ñu ñamal Casamance investissement public yi amoon yëpp tey fierté la ñu mën a wax ni que deux mille cinq cent vingt six kilomètres lañ def 2012 ba léegi. fierté la ñu mën a wax ni que 6673 kilomètres de piste le PUDC def. waaw léegi Mame Mbaye Niang est-ce que xel mën na nangu ak euh, actualité bi fi mu toll tey ñaari actualité majeure ñoo dominé tey actualité bi Sénégal ah. mën naa wax si at bi hmm. benn bi mooy question mandat bi président waxu si benn yoon beneen bi mooy rapport Cour des comptes président benn phrase la si wax loolu est-ce que xel mën na kaa nangu mais mais c'est que nee naa la acteur politique yi ñu nga xam ni politique rek mais ñooñu ñooy doon xaar ay naan ay troisième mandat ay deuxième mandat. askan bi tamit. déedéet non defal ndànk askan bi li muy xaar mooy jafe-jafe mu nekk mu génn ci askan bi li muy xaar mooy ceeb bi muy jënd ñu mën ko stabiliser askan bi li muy xaar mooy courant bi ñu mën ci jot ca mu askan bi li muy xaar mooy est que euh, gerte gi ñu ñi bi baykat yi bay ñu mën ko jënd askan bi li muy xaar mooy ku feebar wala def dem def jalis man ko fa fekk bu fekkee ni que ci rapport bi ngay wax mhm. mais rapport bi président nee na. yoon yaa ko liir léegi mais kii dégluwul ku dégluwul nooy xamee gouvernement bi génn na expliqué nañ wax nañ rapport bi lan moo ci nekk lu ñuy nëbb rapport bi gouvernement du Sénégal moo ko demandé gouvernement du Sénégal moo ko publier wax xanaa kay li ngay publier yow li nga demandé yow ñu publier ko xanaa kay nëbboo ko parce que munoo wax ni génn leen ko ba pare di ko nëbb ci mille milliards yu ñu gérer cour des comptes rapport bi mu génne nee na 6,7 milliards la wax ni que leerul dañ ko war a leeral 6,7 milliards yi boo ko jëlee 2,5 milliards yi ci masques yi la 2,7 milliards ci njëndum ceeb la yeneen yi ci des yu ci ëpp ay ay ay ay ay ay ay euh, ay euh, problème de nan lañ koy waxatee problème d'incompréhension ou de présence ou de réception mu ni yii dañuy dem conseil de discipline budgétaire heure bu cour des comptes defee amee c'est que bii moo leen intéressé mais daaw am na ñu demoon cour de discipline budgétaire cour des comptes daawaati géej am na ñu fa demoon am na ay maire yu fay continuer di dem di fay 300 litres essence. Hmm. information judiciaire bi mu bind mais tey tey tey tey tey dégg nga ministre de la justice ni ko saisir nañ parquet bi li nit ñi xamul mooy cour des comptes bi génne rapport bi ci boppam président cour des comptes mooy bind ministre de la justice pour saisir ko. Hmm. mais du président mooy joxe wala ministre de la justice mais ku xamul nag toog di wax di wax di wax di wax <laughs> di wax baax na li ñuy wax ñu xam ko baax na li ñuy wax ñu maîtriser ko ñu bañ a toog kilifa réew mi wax nga nga toog ci yaa ma neex rek man d'accord naa qu'on discute ku ni ma terre bi c'est pas pertinant nga ni ma terre bi c'est pas pertinent ma ni la terre bi ça transporte soixante mille sénégalais yu daan def quatre heures de temps pour jógee Tëngéej ñëw Dakar léegi vingt cinq minutes la ñuy def nga ni ma li ngeen def ci tali yi baaxul ma ni la def nañ fi 18 autopont nga ni ma li ngeen def ci santé ma ni la 8 hôpital lañu fi fekk tey ñu ngi ci 20. nga ni ma dispensaire amu fi ma ni la dispensaire yu yokku na mais di wax waxi problème de gouvernance mais président Macky Sall moo njëkk a créé OFNAC bi muy wax président Macky moo jox gëdd bi cour des comptes ren am 97 ba 2012 cour des comptes dañu bañoon mu évoluer am autonomie bi mu am